bokk yi gën bu nu sante sunu boroom <coughs> julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp di dénk képp ku nangu ñu maase gën a fab suñu tànk teg ko ci taqwallah te sàmmoonte ak i ndigalam te di ko jooxe waxtu wam ni ko digale jaarale ko ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te di ca tànd ak a dàkk ak payam yàlla na ko yàlla nangu te kenn ku ci nekk taxaw régler boppam bala ñu koy régler ëllëg ñu xam ne dund gu teey koo xam ne kenn du la joxañ kenn du la tuumaal doo wax kenn teg ca baat amut fii faa am la ko fay may nit nag <clears throat> laajoon nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit a ne ko yaa rasulallah lan mooy imaan mu ne ko mooy looy def na yàlla tax bul ca sedd kenn bul ci sedd ñenn bul ci sedd fenn saa bu def ko jotee na ko def mu ne ko yaqiin nag ñi may dégg mooy lan mu ne ko looy def na dëgg nay dëgg ci yow na nit ki dëggu moom la alxuraan di wax ne ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci gëm yàlla gu wér boole koo di ko jëfe ci seeni ciir ñooña ñooy gaaya seenu pay ëllëg mooy ajjana ji ñuy wax àdduna bu ñu fa duggee dutuñu fa génn mukk la ko waral mooy radiyallahu anhum wa moo tax yonent bi ne ku fi bàyyikoo sallallahu alayhi wa sallam ku bàyyikoo àdduna dundam gépp mu tegoon ko ci ixlaas li muy def lépp yàlla tax boole kook ba ko julli waree ba bu ñu faatoo faatu fi waxtu doon na liggéey di génne asaka weeru koor wu ñëw mu woor ko fexe na ba dem makk ci alal ju tey nee na kooku bu génnee àdduna yi nit ñee ko ñàkk daa mel ni waaye am na ngërëmal suñu borom day dugg ci radiallahu anhum wa radu anhum inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya jazaauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu jëf nag bu ko yàlla santaanee muy ak naafilam na ñépp xam ne nun gën a rafete su nit kii dem moom la yóbbaale ëllëg mooy doon ab yóbbalam mooy lay dox digganteem ak fa kenn bëgguta dem ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal moo tax suñu borom man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha lu waay def boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënkal ko ci lu gàtt loo xam ne ku ne mën nga koo gis bis bu set nee na <clears throat> dundub àdduna daa am fu muy tàmbalee ak fu muy yem benn borom xam-xam suñ Masamba Jóob Samb dañ ko ne suñ Tuubaa day nekkatu fi booba ma nga Gabon mu ne alhamdulilah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ne ko yar yooyu lu muy ànde mu ne alhamdulilah ji mooy tegtal nañu ba ñu ngi seen dëkk ba te duñu wàññiku inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku dégg ñu ne ab jullit bàyyeekoo na fi ñu xam yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat te diw gane na àdduna joo dégg lu mu yàgg-yàgg bàyyi ko na àdduna moo cay topp bàyyi ko na àdduna nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen nit ki bu fi bàyyi ba bañ di ko yóbbu ñett koy topp ñett waaye ñaar yi dañuy naan kuuj dëpp bu noppee ca la ñuy def ñett ñu koy topp mooy alalam waa këram ak jëfam alalam bu dee ñi ñiy dox ci diine ca lañu koy waajale ci àllam lañ koy waajal moo tax bu ñu toppatoo gannaaw nit dañ daan jàngale ne tàdduwu mu lañuy jëkk ci alal ji tàdduwu loolu caa teg mu mooy waajal ko ci mooy taag gi daal gi mooy fayal koy borom waaw gi mooy wasiya miim gi ñu soog a nee na nag su faatoo bañ di ko yóbbu ñett koy topp alalam waa këram ak jëfam suñu ko dencee ba noppi ñenn ñi di wax suul am na ñoo xam ne lañ koy xame ñenn ñi xame ko suuturaal ko ña àndoon ak moom ñépp di ay xarit ak wëllëreeg njaboot ak ñépp dañuy wàññi ko ñoom mën naa am sax ñu dugg ci ay wotaam alal la ma alal ja mooy oto ci la bokk dañ koy teg ci otoom ànd ak xarit yeeg wëllëre yeeg dëkkandoo yépp ak ña ko man ña ko yàlla man loo ñépp te bëgg lu baax waaye su noppee nag alal ja day wàññiku dellu ca dëkk ba njaboot gaag xarit yaag ñépp delluwaat ci dëkk bàyyi ko fa moom képp ak kan jëfam yàlla na doon jëf joo xam ne ju baax la ju mel na war a mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne bàmmeel moomu ku ko xool ci dundu àdduna danga nga ko gis mooy jéggi frontière nit dina jéggee ab frontière noonu xelam dana dal ci réew mi mi muy dugg waaye léeg-léeg mu dugg fu ci jéggi wi ni yoo xam ne li muy far bëgg sax mooy wàññi ko te frontière ak bàmmeel wuute na lool frontière mën na ñoo wàññi nit ki mën naa wàññi ko boppam waaye bàmmeel amul ko mi ngi mel ne gémmuñu ko yeew rek war na la man waaye mënut a génne suñ tuubaa nag bi mu koy leeralal nga nangu woon a dégg ay waxam def na leen ne maa ngi leen di dénk ngeen def seen yitte li leen di li leen di gunge ca bàmmeel te di leen te di leen fa li bala ngeen caa dugg na ngeen sax ci iimaan islaam ihsaan nee na imaan mooy nga bañ a wutal yàlla kenn ku koy dendandoo ak moom walla luy dend ak moom ci man-man ci sañ-sañ ci lépp la mu àndal bul am dara ba ne diw moom ma ko jox wala moom laa ko ñaanoon déedéet yàlla nee na ko islaam mooy nga bañ a bàyyi dara ci lislaam santaane li fekk yaa ngi koy man li fee yaa ngi koy mën nag mooy demalaa dema dem ba nga xam ne say bokk amatuñ ci yow yaakaar mënatoo yëkkati mënatoo tër mënatoo teg te booba foofa bokk yi am naa ci ponk ci ponk lislaam yi boo xam ne du taxaw moom li fee nit kaa ngi nooy du taxaw da koy nekk muy julli juróom-ñaari melokaan ni ñu wax ne mënut a ñàkk ci julli ñeent yi moom daa war ñett ya boo mënul ñeent yi def ñett boo ca man def ko ba ca mujj ñett yu mujjee mooy nit ki su munta taxaw temm bañ a wéeru fen lislaam du ko ne mënatoo ko de dafa naan wéerul ci kenn bi ba mën a taxaw su munta taxaw kemm munta taxaw wéeru mu ne ko toogal boog wéeru ci dal bi boog toogal bañ a wéeru boog gàpparu su fekkee mënu ko ne ko wéeru ci dal bi boog ndax nga mën ko lépp kat julli nga taxaw di ko xaar su fekkee mënu ci yaar yooyu lenn mënuta toog gapparo ba ñuy wéeru mënuta wéeru mu ne ko xanaa mën nga wetu ndeyjoor boobu mu ne waaw mu ne ko tëdde ko tey junj rak rukon yeeg sujjóot bu ne wetu ndeyjoor gi bañ na mu ne ko càmmooñ bi nangu na mu ne acca di la càmmooñ noo jëm baax la mënu ko jaaxaan la mu ne ko jaaxaanal bokk tey junj foofu nag bokk yi ko fa àgg ay bokk amatu ci moom yaakaar am na ñooñ nag seenu naat jëmutoon ci waxtu julli jot am na suñu faatu yóbbaale wu ñu yenn waxtu wu ñu wërta julli dem nañ ba xamatuñu seenu njaboot doon ci tudd ku ñuy suñu baaxaar na ba doomam ne ko yaa ma jur mu ne ko yow la mu ne ko mën a diw mu ne ko ah ndax mas na ma am doom ji man moom waaye taxut fam yamoon démb ci wax fam ci alxuraanam du ko fàtte waxtu jullit kenn du ko fàtte loolu nag bokk yi dañ koy tàmm ca ba ngay man def ko ci sam xel foo jëm jëm faak moom adduna lépp fàttaliku la te kenn du fi des bokk yi ñun ñii fi toog nii ñëpp feeg ñaar téeméeri at dana bari ñun ñoo xam ne daañu leen fàtte feeg ñaar téeméeri at mooy l'an deux mille cent soixante treize feeg téeméeri at mooy l'an bari na ñun ñoo xam ne des na leen fàtte. cinquante mag l'an deux mille deux cent soixante treize muy téeméeri at ak juróom fukk wala ñaar téeméeri at ak juróom fukk bari na ci ñoo xam dañu leen di fàtte fañ dëkkoon ñeneen a koy dëkke lañ doon sol day xew yi lañ doon war muy ay woto day xew yeneen oto ay xew yeneen yi ba day amaat ku ci góorgóorlu wutoon nag diggante ak boroomam dañ koy fàtte ci lu gaaw bokk yi àdduna bépp bàyyiwuma kenn ak réew mu mën a dëkk 1823 amul kenn ku ko fekke woon ci àdduna bépp fi ne nii mu ñaar téeméer ci ginnaaw amul kenn ku ko fekke woon ñaata nit lañ ca fàtte sori na sax 1960 soo laajee ñi fekke woon ba ñuy fal député ñaata député lañ woon ak kan nga ca xamoon bari nag ci ñuy fàtte moo ne député yu yàggut yii ci 2000 la xawma 2000. bari na ñoo xam ne fàtt nañ seeni tur te matagul sax fanweeri at kon boog àdduna lépp fàttaliku lay doon ñi ciy fàttaliku mooy ñi nekkoon nekk fi lañ fa waroon a nekk waaye danañ ci fàttaliku koo xam ne nekkoon na fi te nekku fi lañ fi war a nekke suñ koy nettali ak njabootam ak i sëtam ak i yëpp sëgg kenn ku nekk nag war naa moytu loolu ak njabootam rik fu waay jëmoon fu dul fa yàlla digle na wàññiku bala moo weesu ku nekk na fexe ba bind aw turam ci ñiy fàttaliku ëllëg li feeg ñaar téeméer at ak nangam yàlla noonu yàlla dafa dégg topp te musal seytaane ak bakkam wa yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin